bu tedd bi du cent trente appel buy téeméeri ak fanweer ak juróom-benn kon lu yàgg lu nekk dëgg la appel boo xam ni téeméeri at ak fanweer ak juróom-benn ñoo ngi koy màggal euh, wane na ni kon lu mam li ma am woote woon suñu borom nangu noonu moo xam fii ci Yoff Layeen lu ci Cambérène am na lu ñu fa tàmbali itam ci xabru euh, moom Seydina Issa Laye ci yoon wi ñu ba fay jaar ak lépp luñ ci war a def nga xam ne dina mottali taaral bërëb ba ak itam ci fépp foo xamante ne ay gox la yoo xamante ne am ngeen fa ay daluwaay lii ñu yëkkati nag ci këru diine yi am na ku ko wax léegi yëkkati nañ ko itam bëgg nañ ko yëkkati fii ci Cambérène gis ngeen ko ak ci kër xale bi am na luñ fa tàmbali ah, liggéey boobu fas yéene nañ ko mottali ci anam yu gën a gaaw mm-hmm. waaye lépp loo xam ne daal mébétam la da ci la nekk fële ci Malika Euh, jox woon nañ ci ay ndigal ministre de l'intérieur pour mu yëkkatiwaat dossier boobu xool moo nga xam ne noonu lañ ko mën a mottali waaw lépp luy taxawaayu gouvernement bi ndigal yi joxe woon nañ ko ca CRD ba ba tey waaw am naa yaakaar ne ministre de l'intérieur ak mboolem membre gouvernement bi euh, ku si ne war na taxaw na taxawaay ba mu waroon taxaw su amee yu ci am tolof tolof it ñu koy jégalu waaye su boobaa bu ñu ko xamee daañu jël ay matuwaay ngir déwén incha allah lépp gën a mën a jaar eh, may nuyu tam seen doom seen rakk sa Mbàkke laay ndax ci atum 2011 le 10 décembre la def congrès constitutif bu APR ci terrain Jàmmale kenn mosu fa def mosu fa woon def lu mel noonu mu doon lu ragal lu ñu ñëw seetsi ko moom maa fekk ba këram te jamono jooju ñuy sàkku ndigal ci kilifa bi ngir ñu amal fa congrès boobu la hmm. yàlla def ci sutura def ci ndam hmm. ah yaakaar naa ne ñu ngi ko tollanti bi ñu ñëwaatee ci référendum bi ñu ne comme defoon nañ ko mu jéggi nañ ko dellu. terrain <laughs> bi nag gars ñi ñemewoon ko ndax terrain bu rëy la. nekkul a song song ci ab politicien. <laughs> yàlla mayal ñu fa ndam lu rëy rëy keroog bu ñu tëj clôture ah, référendum bi. kon loolu tam wax dëgg yàlla mu mel noonu suñu diggante ak ah, Yoff Layène diggante ak Jàmm Laay am na lu ci yàlla. def mhm. kon loolu tam maa ngi leen ci sant bu baax